رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله سيدي بريزدان مكسال أمون ليني ñew fi tay ziar ci len bañu jappone bisu tay bi li xew ci suñu sous région bi tax mu am mission urgente dem CEDEAO dem Niamey loolu moo ko tere ñëw mu ne ñuy ñëw teewal ko fi jottali yóbbanteem ànd ak délégation bii mu tey amati nañu mbégte mu teew fii ci Medina Baye ngir màggal gane àdduna ngir ngi mbindeef suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna ak alaaxira bis bii tey sëriñ bi lépp koy màggal asamaan ak suuf muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm bis bi nekk yërmande ju ci àdduna bi yàlla moo ko wax ci alxuraan ci suratul anbiya yi وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين يوم محمد ما لا منك يرمل ما نك يرمل نتي من ديب شيخ إبراهيم نياس باي وخنا سي تيريم بو ني واخ مجموع القصائد دي تاد يونتي الله عليه الصلاه والسلام يوم يونتي الله محمد bi nga ganee àdduna ci la suuf si naat waaye tamit ci la àdduna bi yépp leer Cheikh Ibrahima Niass Baye ku xam yonent yàlla Muhammad la dundam yépp da ko jeexal te di ko tagg ak di jàngale ci moom Baye Niass Cheikh al wax na lu bari ci sang bi moom la yàlla tànn ci lépp moom la yàlla jiital ci lépp lépp lu yàlla def di maye la gën may na ko Seydina Muhammad moom la yàlla jagleel jéggal jéggaleel boppam moom la yàlla gën a kawe ci lépp lu mu mën a doon sëñ bi cheikh al islam la ndax penku ak soowu ku ñuul ak ku weex arab ak ajam ñépp cheikh al islam bàyyi ña na leen ndax sëriñ bi ku xool tey Medina Baye xam ne nit jógee ne ci continent bu nekk ñëw fii ànd ak yéen ci bis bi di ko màggal Baye Niass gàmm bi daf ko rendre gàmmu international réew mi jariñu bitim réew di jariñu ci gàmm kon daal mën nañu wax ne Cheikh al Islam Baye Niass géej Mbambulaan la ñëpp ngi root waaye du mës jeex salaamu alayka ya ya habibi allah